nekk ci àll bi foo ba heure mu neexam ñu ni ko suba lañ koy takk ah. Mhm. mu dem fii nga xam ne ci moo ci pharmacie bi. jënd fa ndaw. Mhm. Ah? kooku lu tax nga naan ko doomeraam. la moo la wax ne la doomeraam la ba nga naan ko doomeraam. waaw ah, kay ni muy mhm. ñi tey bu ñu toogantee seen bopp ñi tey duñ mos. déedéet duñ duñ duñ duñ jëndi protect di di di di di. mos ci gars yi ah, mais noonu laa ko mën a waxee internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ni leen nag bu leen fàtte abonné partagé clignoté yi comme yéen ma gën a xam comme niñ koy faral di defee rek balaa ñoo jàll nag ci suñu thème bu am solo bi ñuy indi tey damay bàyyi sama mbokki plateau yi nuyoo ba pare Mouhamed dalal ak jàmm. ah Aïcha salaamaaleykum gars yi ñu leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ku si nekk ñu ngi la fekk fi nga toog ne la jàpp loxo di la nuyu di la bëggee saa su nekk ndamoo safoo di leen wax maanaam nag comme ni ma wax rek nañ ñu mën a doole yéen suñuy xarit waaw di leen wax nag affaire yi nag tàmbale na yaay nu mu gën a xam ah. Mouhamed waaw li nga yëkkati neex na. bu ko defee dañuy daal di dalal ki nga xamante ne tamit mooy Mbaye. Mm-hmm. Mbaye ziar nañ ba sa yaram jàmm. baa rek tey moom <laughs> nuñ ñu ko sax ñëw ak ngay énergie. Mm. mbaay man sa toni daf may faj. waaw toni bi de lu ne la lu ne la. Mm. fa tubaarikàlla sama papa ba ci yemal xiyam sax damay envoyé message bi ma laaj toni bi pour. waaye <laughs> loolu doy na waaw waaye yow ma xiyam nag bu leen fi woo. <laughs> waaw gis nga loolu bu ko defee mu nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. Mm-hmm. waaw di leen wax comme ni ñu ko waxee rek euh, ngeen abonné like partagé ah ndax ñun dañoo ñëw pour bégal leen. Mm-hmm. Ah, ngeen jàpp ci combat bi yéen a gën a xam. Ah, di leen nuyu di jox seen wàccuwaay te di leen wax ne tey émission bi moom tey li ñu nar a indi. Uh-huh. dana saf dana neex. ah Fatou Wade Kalle tey moom plateau yëngu. waaw tey moom moom sentir naa ne bu baax ne dina yëngu ndax tey ñu ngi ñëw ci thème bu am solo lool bu jéggi dayo bu doy waar. Mm-hmm. boo xamante ne. Mm-hmm. booy xool actuellement nii lëmbe na jamono. Mm-hmm. daanaka mi ngi mel ni par exemple lu mel ni euh, virginité. ñu gën koo xam ci wàllum ndaw. ñu gis ni léegi xale yi. favoriser tuñ ko comme bu njëkk. Mhm. maanaam léegi joxatuñ ko gëddam maanaam léegi xale yi gis nañ ni daal maanaam foo lañ gën a favoriser que respecter seen bopp. Mhm. waaw tey nag ñu ñëwoon ci jéem a partager ak li nga xamante ne léegi mooy wàllum sexe ndax dañuy gis ni léegi xale jigéen ñi dañuy dem di utiliser ay produits yoo xamante ne soit mooy delloo seen sexe yi pour que bu ñu génnee gën a mën a am possibilité pour fo wala soit des tamit. ñu tromper xale bu góor bi parce que xale bu góor bi jàpp ne ki fawul alors que ne du lolu mu doon lo xamantene lu doy war la lu lëmbe jamono xew ci jamono mbay yow amet ma gis ni legui kersa dafa jeex ci ci ci rew mi parce que xale legui du sa tuñ dara. waaw soxna ko do comme ni ko waxe rek waaw legui jamono tol nañ jamono gi nga xamantene ni man mu naa ne jamono yi foo la. c'est li ko xale jappé waye mag ñi ñing ko jappé jamono yi njëkkante jamono yi liggéey jamono yi am. waaw jamono yi sutura sa bopp. Mhm. mais xale yi léegi dafa mel ni maanaam amatuñu ay conseil mhm. euh, te toll nañ jamono joo xam te ni dañoo war a téye xale yi comme suñu suñu suñuy morom. Mhm. suñu morom teg leen si yoon. mais tamit ci benn côté dama naan waajur yi xaw nañoo sàggan. ndax euh, xolatuñu téléphone xale yi. xolatuñu xale yi ci lu ñuy dugg. xamatuñu xale yi fu ñuy dem lu ñuy lijjanti lu ñuy wax ak lu ñuy def. léegi daal dañu bàyyi xale yaay maa ngi dem fii waa demal te ñëw bul yàgg loolu lañu am léegi si xale yi comme maanaam juratul xale yi wala dañoo jur xale yi ngir bàyyi leen ak seen i sago te pourtant mun naa ne xale sax euh, xale xale rek la mun a nekk mais ñun mag ñi daal ñu war a mën a teg si yoon waaw sama ji mbaay comme niñ ko waxee rek mu doon loo xam ne daal jéggi na dayoo daal ñu doon laaj maanaam ban ban pexe daal ak ban solution lañ mën a def ci loolu pour saafara ko ci jamono bi dara ndax solution dana mën a am ndax jamono fi ñu toll waaye solution mën na am de. ah solution xale yi dëgër nañu bopp euh, xamatuñ fi mu war a taxaw. Mhm. ndax dangay gis koo xam ne doomaram joo xam ne day nekk ci àll bi foo ba heure neexam ñu ni ko suba lañ koy takk ah. Mhm. mu dem fii nga xam ne ci moo ji pharmacie bi. Mhm. jën fa ndaw. Ah, waat boppam ca fam ne woon ah, nga foog ni loolu saafara dina ci gaaw a am loolu saafara du ci gaaw a am. mais Amath loo gis ci loolu. waaw saafara mun na see am mun na see bañ am parce que mun naa ne xale léegi li leen lool rek la ñuy def euh, maanaam xale léegi dañuy dem ak seen i xel moo tax ñuy sonn. mais Ahmed tamit euh, tamit dem jëndi ndaw mu doon loo xamante ne ay fen la est-ce que tamit jar da koy jar mieux vaut sëgëm yow foo nga ba loolu fekk la ci est-ce que jotul tamit yow waa ji nga toog ak moom nga partagé moom wax ko li fi ne bu la ciy bëgg mu bëgg la ci bu lay bàyyi mu bàyyi la ci. est kooku noonu maanaam. séntu woon na si xale bu jigéen boobu amour parce que mun na bañ a séntu si mu amour séntu si moom foo tey ñun góor ñi dama naan ñun góor ñi tey tàmm nañ benn wax muy non lii du la def dara kaañ foo du la def dara du ma la gaañ di sekk c'est-à-dire comprendre nga ñu dañoo tàmm wax jooju moo tax maanaam jigéen ñi léegi maanaam tàmm foo bu ëpp mais yéen tamit am ngeen ci part de responsabilité yéen góor parce que bul ne jigéen ñi rek toujours dañuy blâmer jigéen ci part de mais ak parce que mënoo ne góor que boo nee góor daanaka laal nga ñëpp am na ñoo xam ne seen yéen nekkul ci ay effet de faux ay effet de caaxaan tey boo leen waxoon mbirum yàlla waxoon mbirum yonent bi bëgguñu si ay comprendre baax ma waxee mais maanaam boo nee góor rek laal nga ñëpp tey da ne ak i góoram am na ñoo xam foo da foo dañuy foo di nelaw foo di dox foo di lekk foo di naan ba ci léeg damay dégg xale yi góor yi naan man damay préféré jigéen bu muy doon wala jigéen bu may séexal mu doon jigéen boo xamante ne soit moom ñu baal ma ci kàddu gi day doon loo xamante ne maanaam sexeem day fekk mu ferme mu doon loo xamante ne man dama koy ñaawlu trop ndax bu pour man yéen góor ñi yéen a war a defar man si je me dama yaakaar ne yéen yéen a war a defar parce que yéen yéen a war a fekk lu ñaaw ngeen defar ko mais jamono ji yéen ñii góor yéenay gën a ñaawal lu tax loolu waaye. xanaa da wax sa biir wax ba pare saa booy sànni rek da nga góor ñi. ah xam naa daf cee toog toogaay jigéen nag moo tax nga jël leen défense moo tax <laughs> waaye yéen da ngeen a doy waar ni góor ñi bonee noonu la jigéen ñi bonee mm. ndax am na ci jigéen ñoo xam ni ah, ñoom ñoo yàq góor ñi waaye jigéen bu bonee rek góor a ko bon mais si li mu wax dëgg la parce que jigéen parce que parce que maanaam jigéen lu góor def jamono juñ toll waaw jigéen moo ko def loo jigéen ko def tey maanaam góor bu duggee safara jigéen la ah kay bu mu ne cerox bi safara rek jigéen ñi tey buñ toogoon tey seen bopp amaan na góor ñi tey duñ mos duñ duñ duñ duñ jënd protect di di a a safara ma yaakaar ne góor ñaa fay ëpp mais waaw ñaa fay ëpp parce que li tax góor ñi di fa ëpp jigéen ñi la est-ce jigéen ñi buñ toogoon seen pooju ndey tey bañ leen leen alxayri dégg ñu alxayri maanaam est-ce ñi dinañ dinañ dinañ si jigéen naan leen seeg c'est-à-dire tamit jigéen ñi la léegi uh-huh. man gis na ci benn doomeraam joo xam ne ah, ndayam ndayam yàq ko ba lu tax nga naan ko doomeraam la moo wax ne la doomeraam la ba nga naan ko doomeraam waaw ah, kay parce que ni muy ni muy jafee mooy jëfi doomeraam mm-hmm. ndax amul ndax na toog ci peggi ndayam ah, ba mu aji gis ko bëgg ko ko ko de la jël ko ci bi gum fréquenté bu soo fréquenté keneen mais xam nga lu ko def loo lu ko def loo ah est-ce que yow xam nga lu ko def <laughs> bëgg lu bon rek jigéen ñi ñoo bëgg lu bon léegi dañuy jaay seen bopp ndax téléphone. mais tamit gis naa ci doon xaral yoo xam ne mais tamit hamburger hamburger. wala fataay bu moo moo tax moom moom jamono bi doy na waar la mel ne jamono. ah boo ko laaxal xam nga mii xam nga ci dara. Ah, xam nag bàyyi <laughs> nag yaa ngi bëgg a exagérer. loo xool xam yaa ngi ngaa ah parce que xam nañ lépp de li ñu wax ni xam nañ ko bu baax. mbaay tegal sa baaraam foofu ma ñëw dinaa la tontu man nag sooy wax waxal waxal rek te bàyyi ma ci génne ma ci nag. Ah, xam nga li Amet des fois tamit damay gis góor ñi. Hmm. souvent ñoom aussi dañ ci am part de responsabilité ndaxte maanaam mën naa ne parfois bëggum bëggum fo. Hmm. wala bëgg a def naka sudul noonu wala bëgg am gel bi da leen di jaral kut ko kut ñu def lu nekk. kooku daa gëmul boppam képp koy def loolu ci góor da ngaa sa bopp hmm. mais yàlla mooy maye. tey gis na koo bëgg ñëwal ci moom. woo ko. mais ne ko wax ko sa soxla. li li li waykat bi doon wax rek. gis ki nga bëgg wax ko aayul. billaay mais wax ko mu mu nangu la bu la nangu lee nga xam ni loolu la yàlla dogal nga dem séddu ko jigéen ñi jeexuñu. mais tey boo bëggee jàpp noonu kii non faa ma tooxaan ko am ci moom lii am ci moom la. mais loolu sa bopp ngay nax. am na am na euh, ku ma message ne ma. Uh-huh. mbaaya nee ko mu bàyyi. Mm-hmm. yow lay lëre. Uh-huh. mais ñun xamante nañ bu baax. Uh-huh. yàgg naa. joxe hamburger bu 500 mbaa lolou noko jangate ya? <laughs> ah lolou bu yak dar la nit wessu tok sa écran jël tim sa écran manam man waxuma ko de. di ki ni ko la di ka ko xam nga manam manam manam message. Ah. tay mën nga toog. léegi tok sa nit o xoolal kii tam mi avay message euh message. nan ma code yaa ngi djum manam yaangi ngi juum pour lan nga nan góor tamit góor waxna deug pour lan nga naan góor tamit góor parce que iya, yeen yeen ko def. ah mais déedéet ñun baa leen duñu ñun ñun góor xaw ma man ñun góor ñu xaw ma ay ñun ay mala ah, la ñu jàppee xaw ma crocodile xaw ma jaan jaanu géej la ñu man jàppee man waxuma la crocodile waaye euh, ma jaanu géej sax ñaangoor sax yéen a ko raw kodd waaw dama ñëw léegi ci paamet am na lu mu doon wax sànq lu am solo mhm. mooy góor goo xam ni maanaam ku gëmul boppam comme li nga ko eh, kii léegi mhm. maanaam am na ci ñoo xam sax dañuy gëm seen bopp mhm. waaw toog fa ñu war a toog mais saa da nga gis koo xam ni ma maanaam man siqnaa ce gel maanaam musuma ko waaye bis buñ njëkkee nekk ci néeg mhm. dama koy waxal diine aaya buñ génne xam la ba mu demee xarit ba xam lu mu ko mhm. ah mbaay mii mhm. mbaay mii de mooy loolu mbaay est-ce yoomut mbaay mii mbaay ba bi fóonu ma raayu ma léegi waa léegi mbaay <laughs> mbaay ah. boo demee da ngaa sàcc bi de yow waxoo lépp de ah mais parce que parce que parce que li bu ngeen dee def dara du ngeen toog man mii su ma nekkee tamit ci mbedem di def lu bon du ma taw ne dama koy def am na ñuy def lu bon mais am wax mais yow mu ngeen waat ni nangu doo leen def mais déedéet ñun bu ñu def loo te defuñu ah, bu ñu def loo te defuñu ah, mais am na ñoo xam ñi ngi def toog def tey tey tey tey tey gis nit sa morom góor tey mu def dara ñëw toog ak yow ne suwaay booy bi jàpp naa ko def naa ko li tey tamit dañuy toog seen xarit di leen wax dégg ñaan maa kii diw amuñu na boo mhm. kon ça ça veut dire wax li ko gi di def mais Ameth da nga am solo kii nee na ñëwal ci lii li méta wax ndax dafa wax lu am solo lu tax góor ñi ñu sékkee ak jigéen dara bu ñu paree toog ci seen biir ñu partagé ko seen biir booy bi def naa ko nii booy bi démb jaar na sama gaale nangam nangam lu tax loolu lu tax ngeen mën yu ñaaw yooyu lu tax loolu waaw loolu mun naa ne ñàkk ñàkkal sa bopp fayda la en même temps ñàkk sutura parce que ñàkk sutura weesul nga sekk nit ko pare dem toog say xarit naan ko diw sekk naa moom te def boo xalaatu ni yow yaa ko def tey doo toog di ko wax mm. parce que loolu noonu du du keneen moo ko def nga gis ko yow yaa dem ci kooku jigéen gi mm. mais tey yaa war ngaa mën a rus nga xool sa der xool sa bopp mm. bañ a bañ a toog nit nan ko sekk si euh, euh, seek ak naa kii wala seeku maa kii tey tamit ku jigéen ki tamit def loolu noonu tamit moom war naa jomb sax dem jàkkaarlu moroom jigéenam nan ko def naa ni wala defuma la mm-hmm, mm-hmm. maanaam sutura boo ko mooy doo ko deful sa bopp rek doo ko mën a def si keneen mm-hmm. léegi ñu dem ba xool ni kii mu ne jamono ji booy xool sax ndaw kenn favoriser du ko léegi. kon jamono ji moom euh, boo takk jawar mun ngaa takk noonu rek ba cee xalaat ndaw la. te xam ne moom da ngay fay liggéey. waaw laf ngay def de laf ngay fay ba xam. waaw na rafet boog na ah, rafet ah, mais li fi ne la wax lañ war di waaw waaw fi mu ne nii bu doon cent pour cent quatre-vingt-dix pour cent yëpp wàccaatal wàccaatal bu la nee mën nga wàccaat de mais nag sama mbokk jigéen ñi dugg leen nag parce que jot na tamit ngeen dugg wax ak ñaar ñii ci commentaire yi waaye yéen ñi ngeen dugg ci commentaire yéen tamit défendre seen bopp parce que ñii yéen lañ amee ci plateau bi te waroo leen nangu loolu mais xam nga tax ñii duñ dugg mm. parce que li ñuy wax nii dafa am motax duñ dugg. mais nekul ñëpp. mais duñ mais man xaw ma de mais en tout cas dafa am. mais amel yow li ngay wax ni est-ce yow nekul dang ko fat dang ko dund ni motax na bu doon lu ma dund la aw ma complexe tok fi soxna ci diko fi wax. Eh, code code. <laughs> Ah. kii de envoyé na message ne ma yaa ngi Paa Amady ay dul kat ngeen wër ngeen ba <laughs> dama lay comprendre rek dama lay comprendre xam naa sa xol a jeex nii leer mën jigéen kii la appartement yi la. ñoom la ñoom la mais nag dafa mel ni yéen a ngi suñu mbootu jàmbur de. ah xam naa. moo ñu saaga de. Ah. dañuy bañ a saaga ci télé bi rek waaye. léegi euh, Ameth léegi yow lan ngay dénkaat sama euh, mbok jigéen ñi. lan ak ak ba ci se ak yéen tamit yéen góor ñi ngeen dé ngeen bàyyiwaale message boo xamante ni pour yéen góor ñi la tamit. parce que su ngeen jàllalee message ci jigéen ñi di ngeen jàllalaat message ci góor ñi. waaw damay njëkkee si góor ñi rek. te di leen wax maanaam euh, maanaam li ñuy def jigéen ñi hmm, bu doon seeni rakk la buñ ko defee noonu. wala bu doon seen rek lañ koy def tamit du leen neex kon ngalawaay nañ xoolaat li ñuy def ma ñëw si jigéen ñi tamit jigéen ñi tamit nañ xam ki ñu doon nañ xam seen valeur jigéen daa war a xam boppam. parce que jigéen da nga war a xool sa yaay boo xoolee sa yaay di nga jomma def yéen nii. ok loolu laay lañ teg. waaye. man moom li ma ciy sànni sax daa bariwut réew mi moom fi mu ne nii man maa fi nekk du décrédibiliser kenn ah ku ci bëgg a nekk dooméraam daal nekkal dooméraam. waaye di nga déedéet déedéet waaw seen kaw. waaw ku ci bëgg a baax it jëlal yoon bu baax bi yoon bu baax baa ngi nii jaar leen ci ñun la ñuy jaar maanaam ñaari yoon yaa ngi noonu yaa xool fa ba ñëw sa kër ah ala xayri moom nekk moom nekk moom loolu laa lay dénk fa tubaari kàlla la conseil boobu ngay jox sa morom sama yoon ne wuti baaxoo de mbaa yow mi baaxoo am nga noo mel waaw mbokk internet yi gis ngeen niñ ko faral di defee suñu émission suñu plateau bu am solo bi gis ngeen ni ñu koy faral di defee à chaque fois mhm. di xool ay thèmes yu am solo di ko souligner pour mën a yeetewaat ka parce que ñu xam ne tamit dañ defuñu ko ngir dara dañ koy def pour pour pour pour yee nit ñi pour ñu delloo delloosiwaat seen xel bëgg naa aussi sama mbokku jigéen ñi tamit maa ngi leen di jàllalewaat message pour ngeen gën a bàyyi xel jamono bi ni muy doxee defaraat seen toogaay bu baax a baax a baax ndax des fois damay dégg sax ci gars yi naan euh, jigéen ñi dañ fee bari te pour jigéen ñi jigéen ñi pour ñu takk leen ñu sëy ji il fa que ñu defaraat suñuy toogaay donc maa ngi ñaan di jàllale message sama mbokk jigéen ñu defaraat seen toogaay bu baax a baax di leen wax ni émission bi à chaque fois ni lay demee balaa ñoo tëj émission bi nag damay bàyyi sama mbokk plateau yi ñu tàggatoo ñoom tamit ba pare. waaw kay maa ngi nuyu sama yaay ak sama papa ak samay mag ndeysaan di nuyu aw kebe di nga xam te ni mooy maman maa ngi nuyu ñoom maa ngi nuyu daal ku ñuy béggee te di leen wax leen fàtte abonné. partagé gars yi na am doole. parce que ni ngeen di bëggee rek la ñuy bëggee te tamit defuñu ko pour lenn ñu ko def ngir rek ci xel yu ubbeeku kon ay ca gars yi nay neex. mbaaya. ah waaw waaw waaw tàggatoo ngeen def ngeen lépp. mën na ko xanaa di sant ñëpp nag. waaw ku lim da ngay juum. fatabaarikàlla ñi nekk sama ginnaaw daa bari. ma ki nga xam ne mooy kii man laa sa message ki nga xam ne mooy Fallou Couture maa lay ñaan yàlla fi balaa weer wee dee nag saa ma sama. ab baab nag Couture mii Fallou Couture mii. ah Fallou ku ci dama ne dama ne mu changé ma abi ma ndax ku ma yab rek ci lii nga ma yabee. waaw war na nag waaw yàlla baax na yàlla baax na. Fallou ñaan nga jàpp ci bu baax nga jàpp ci bu baax. waaw kay dama ko fàtte woon sax maa ngi jéego ki nga xam te ni mooy Bamba ndeysaan nekk nit ku baax. Ah, bamba bamba bamba bamba vert ndeysaan moom yow koo jaawel vert rek baaxul ah, yàlla sa jàmm yàgg gis naa vert yi ngay jaay taat fa kàlla macha allah rafet na waaw sama gars yi gis ngeen comme ni ñu ko faral di defee toujours ànd ceeg yéen émission bi jaar yoon xool thème yi am solo di ko dugal mm-hmm. donc damay nuyu sama famille di nuyu sama yaay di nuyu sama papa samay nijaay aussi di nuyuwaale ki nga xamante ne mooy Nabou moo génn ak man fii ci coiffure bu nice boobu maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal ñëpp bàyyiwuma kenn di wax ne nag ku lim juum di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah. waay waay waay bu leen fàtte yi ñu ne ci ginnaaw ndax bu taaroo nii ba nit ñi mu ñoo xool. dina rëcc waaw waaw loolu am na solo lool. maa ngi nuyu aussi caméraman yi ci ginnaaw. surtout ataaya man bi ci ginnaaw. <laughs> waaw moom mooy li moom ak borom gerte jaaf bi borom gerte jaaf bi waaw waaw waaw koy dig daje. ci beneen numéro incha allah rabbi